fi mu ne ki bëgg sunu borom ku ci man di wax rek doo xool fu mu féetewoo waaye jëmm yàlla ji li nga bëgg mooy tax waxam dalay daal dugg dalay daal di neex ak kooku fu mu mën a féete bu ngeen bokkut diine sax waxuma la sax ngeen bokk diine lislaam waaye bu ngeen bokkut diine sax kooku da nga koy bëgg daf lay neex ndax li muy wax yow moo lay neex ndax ki muy wax moo la neex mooy yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ñoo ko waxee léegi fii ne kii waxtaan ci sëriñ bi ñëpp dañ koy bëgg doonte tax du am murit sax dañuy wax ñu bari dañoo wax murit moom li nga leen di naxe moom waxal ci sëriñ bi rek waaw moom boo nee sëriñ bi rek moom seen xol day daal di sedd duutu ñu amati lu ñuy xool duutu ñu amati dara noo mën a mel neex nga leen sëñ bi leen neex sëñ bi lañ bëgg waaye loolu nag boo ko gënee yaatal gis josaanal sëriñ bi si xaqiqatan da nga koy delloo ci li sëriñ bi wax ci masalik ne bépp nitu yàlla mi ngi jàpp ci mbiccum rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da ngay daal topp leeru sëriñ bi day jeex tàkk ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaye boo toppee leeru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xaqiqatan it daf lay daal delloo ci jëmm yàlla ji suñu borom subhanahu wa taala nga xam ne ci moom la bàyyi ko su boobaa loolu lépp nag bëgg yooyu yëpp dafay delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ma wax sëñ Baara moom ne ko léeg-léeg am loolu danaa ko gis di la ko yónnee bëgg ñu di ko yaatal ci feneen laa koy jëlee sax waaye foofu man la ma fa yitteel mooy jëmm yàlla ja rek kii wax it li ma yitteel ci moom it mooy jëmm yàlla ja rek fi mu ne tey da nga gis koo bokkulu diine la muy wax ci jëmm yàlla ji daf lay neex lool ba day dem dara waaye nag nit ñu bari nag xëy na suñu borom da leen a nattoo geneen anam lii tax ñu mën laa déglu daal mooy da ngeen di bokk fu ngeen féete. mbaa nga doon dara ci ñoom waaye bu dul loolu daanaka duñ la déglu waaye nag loolu ku xam dëgg dëgg dëgg ku xam dara ci yàlla képp ku wax dara ci yàlla rek daf lay neex waaw ndax jëmm yàlla ji ci boppam mooy moo mel noonu subhaanahu wa taala yàlla noonu yàlla dimbali nag ba téyel nu sunu cofeel ci moom yàlla sunu borom subhaanahu wa taala te sunu borom mosal nu ci ñëpp ndog ak pakk ak musiba ak balaa kon fu waay mën a waxee rek ak lu mu mën a wax rek bu delloo ci jëmm yàlla ji rek ki bëgg yàlla moom da cay gis boppam bu baax a baax a baax a baax ndax yàlla nga bëgg yow looloo ko waral maj noonu lay laa moom ñu nettali kat yaakaar naa ne ñëpp xissa bi ñëpp nettali nañ ko koo xamante ni fam jaar rek da nga fay jaar di waxantoo ko lu ne nga di ko def dañ koo wax jëmale ko ci kooka rek waaye keneen ku mën ne doon la bëgg te muy dëgg ci moom it noona la cay doxe noona la cay waxe yàlla nanu yàlla bokk bëgg nag ndax soxna su dee day faral di wax ne mën a bay neex borom tool ko gën a wóor waaw mën a bay neex borom tool moo ko gën a wóor wax boobu nag dafa am solo lool lool lool lool ba nga xam ne mën nga koo firi ci anam gu ne fi ne léeg-léeg mën ngaa wax benn baat rek waaye ku la ëpp dégg mën na caa firi téeméer yi téeméer yu bokkut waaye junni yu bokkut mën a bay neex borom tool fi mu ne da nga gis ku nangoo liggéey lool waaye yàlla muy joxe di ko xaj nga gis ko yëfus ba mel ni man it yàlla di ko dimbali kon mën a bay neex borom tool waaw fii ne ki la neex moom nu ne mën nga koo jëflantee moom fii ne da nga gis góor googu day am ñaari soxna maa yetti soxna maa yent soxna kenn ki lu mu def moom gongo baax na waaw da koo bëgg rek wala da koo nob rek waaw kaca des lu mu mën di def ci lu baax day mel ni da ko gën a fat waaw day mel ni da ko gën a fat waaw ci ci ci lu mel noonu nag ci la soxna si doon waxee ne mën a bay daal xam naa ne neex borom tool ko gën a wóor ah waaye loolu nag boo ko boo ko seetloo ba seppili ko ba settantal ko nag da ngay gis ni nag mën na ko indi ci maxnaa yu baree baree baree baree bare waxtu ne ndax yàlla it li may wax waxtu ne fii ne boo gisee du ma tàyyi ci di wax lépp ci coobaram rek ci la ko teg moo mooy loolu lépp ci coobaram rek la ko teg nag waaw waaye mën a bay daal neex borom tool am na ca solo mooy yàlla mi nu bokk bind daal bokk nu moom bokk nu melal bokk nu kàttanal yàlla na sëmbatal ci nun ak cofeelam ak tawfeexam ak jagleelam waaw fu nu toll it nag it nu nu bokk di di muñ ak a sant ak a góorgóorlu ak a farlu te jëmmam rekk tax ndax àdduna kat lépp muñ la nag ndax boo fi nekkee yàlla dana la nattu ci sa jëmm dina la nattu ci sa alal dina la na- nattu ci sa njaboot mën na laa nattu ci li la wër te nattu yooyu nag fu ko soob rek fa la koy awale ci lu ko soobi ci la koy jaarale waaye nag su boobaa nag da ngay muñ waaw xam ni tawfiix rek mooy toftalu ca natt booba ci baaxam ak yërmandeem ak ndimbalam ci daahir ak ci baatin sant gi it moom dafa am fu mu tàmbale waaye dafa munta am fu mu yem waaw ndax def gi mu la def ngay nit rek ci coobareem nga xam ne jënd jëf mayu la ko fi ne kat moo la mën a wax de diw mi kat sama jëfam ji moo tax yàlla def ko muy nit amut am na cër yooyu yàlla da koy def ci coobareem rek aju ko ci dara am na ci loolu nag mën na koo aj ci boo defee nangam ma defal la nangam kon boo xoolee cant gi moom itamit dana am fu mu tàmbale waaye du am fu mu yem ni muñ war a amee cant gi it noonu la fa nekkee ñaan it noonu la fa war a nekkee sax fa dàq ndax li nga yëg ci ak cant kat da ngay ñaan suñu borom mu saxal ko li ñëw di nattu it da ngay ñaan suñu borom mu tegg ko ci jàmm ak salaam ak tawféex ak sutura kon ñett yooyu benn mënu ca ñàkk boole ca nag di def say listixfaar te jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala rek tax ndax adduna képp ku fi dund baat bi may faral di wax te bu ma wéetee di ko wax bu ma wéetli ko di ko wax ma di ko wax nit ñi di ko dégg ak gis mooy daal sëñ bi ñàkk a xam fii suñu si suñu digg ak jant di sol lim fi xewal war naa tax ñu tey ci lu baree baree baree baree ak di def ndànk ci lu baree baree baree ndax nit ñi gaaw nañ lool ci seen diggante ak seen moromu jaam te léeg-léeg ñu xaw cee soxor lool te jaam bi day mënoo koo àtte léeg-léeg nag man ngaa àtte jëfi jaam bi jëf ji te kiy àtte jëf ji it da nga koy teg rek ci li nga xam masalan tey nga ne ah diw de bu ma jógoon di jàpp nga di ma gis ma def ko ni ko téeree santaane da nga ni kii day def na ko ni ko téeree santaane am déet liñ la jàngaloon ci téere yi xam nga ni day bu dee njàpp la kii def na ko bu dee wàcc na ca dara it nga ne ah kii day njàppam mi wérut wér na gi ak wérut sañ nga ko su boobaa ne ah kii day njàppam mi wér na ndax nii mu jàppe day noonu la te su boobaa it na fekk it nga am kumpa sa kumpa denc ni yéene na xam nga ni mën naa jàpp ba jàpp mi jeex te xamoo ndax yéene na am déet ndax yéene ji ci xol la ne waaw su boobaa it xam nga loolu sa kumpa la bu ca toftalee sangu set bu dee moo ko war it bu dee wax na la ni def na ko ni ko téeree santaane bu la neexee nga gëm ko jàpp loola bu ñëwee taxaw di julli nga gis ko lii la téere yi jàngalit ba tey xam nga yéene ji nga mënta gis man nga koo bañ a dégg it te fekk ma nga fa su boobaa nag li nga gis lépp danga naa kii day ni mu jullee ni ma déggee téere yi jàngalee ko julli day def na ko waaye nangu nga nekkul ci sa loxo ci loxol yàlla la nekk kon julli gi wér na fi yow ci li nga xam ci téere yi waaye nag nang kii nangu julli nag mooy yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ndax dafa am yu biiru ci nit ki yoo xam ne yàllaa ko xam nit ki mën naa def yéene ma yëpp ci julli waaye am na jëf yooyu mën naa tere suñ borom nangu jëfi jaam bi loolu diggante yàlla la ak jaam bi loola benn jaam nit ku ca waaw di mbirum yàlla la mbirum suñ borom la ci digganteem ak jaamam kon su boobaa yow nit ki li muy jëf jëf ji mën nga koo àtte waaye jëmmi nit ki mënoo koo àtte kooku yàlla rek moo xam ëllëg nan lay def ak moom mooy tax fi nag kii ab jullit ak kii du ab jullit sax mën nga koo àtte ci kaw ci li ci li nga jàng ci li nga xam waaye nag atte ko ba mën koo dëkkal fenn ëllëg kooku coobaree suñu borom nag ci la nekk kooku yàlla moo koy def waaye léegi-léeg nga gis ko wax naan ñii nitu sawara lañ kii nitu sawara la ñii nga naan nitu sawara lañ ah wax dëgg yàlla xamoo fu yàlla jëm ak ñoom bu dee nag yàlla dala ko wax it bu la neexee nga naa yàllaa ma ko wax ndax nit ki am na lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën na ne mën na koo jàngale alxuraan it mën na koo jàngale waaye ndax melowoo nit ki sax na ca waaye at définitivement nit ki ne kii day dem sawara kooku moom yàlla rek a ko moom waaw loolu moom mooy li nga xamante ni mooy li wér kenn ah loolu mooy tax ñun ñëpp euh, nu nu bokkaat gën a góorgóorlu bokkaat gën a farlu nit ki lépp lu muy jëf man ngaa àtte jëf ji ca la nga jàng ak la nga xam waaye jëmmi nit ki nag yàllaa koy àtte ëllëg bàyyee ko kullu moo aatihi yawmal qiyaamati fardan ëllëg comme doon ci noonu yàlla dana la taxawal ba nga jàpp ni yow rek la mu laaj la su boobaa yaa ngi moom dong lay doon du yàgg moom ak kenn kon loolu it nañ koy waxtaanee ko te di ko daw nga yéene sunu mujjit fii ci kaw suuf waxuma la ëllëg sori na war naa tax ñuy tey ci mbir yu baree baree bare di ko def ndànk kon maa ngi dénkaat saa bopp it di dénkaat saa yu bokki taalibe yi ak saa yu bokki jullit ak bépp mbindeef boo xamante ni yàlla dogal na kàddu gi ngay di ci jariñoo ci coobaree sunu borom nañuy muñ nañuy sant nañuy góorgóorlu nañuy def li sawaara nañuy rafetal suñu jot ci bindeef yi yàlla yëpp nañuy fexe ba di bañ di sukkandiku ci nit ñi ci seeni wax ak seeni jëf yi ni ci ci xew-xew yi ndax nit ñu bari sonn nañu am nañ fitna am nañ coono bàyyi xel nit dong moo moo tax moo leen sonal moo leen fat moo leen fitnaal te loolu lépp mënoon naa ñàkk bi ngay ñëw yow dong yaa ànd ñi nga fi nekkandool di di wétlikonte ak ñoom sa diggante ak ñoom na rafet waaye bàyyil xel ki la ki la indi yow rek bàyyi la fi nga nekk ci ak nekkam di la fi jëlee boo liggéey mu di la laaj kooku moo mat a bàyyi xel dëgg dëgg dëgg waaye nit ñi kat bàyyi xel bi ngeen di bàyyi xel ñu ngi ciy jëlee lor yu méttee méttee métti ci suñu diggante ak ñoom waaw ba tax na daal maa ngi maa ngi dénk saa bopp te di leen dénk lu bokk gën a góorgóor lu bokk gën a farlu nangoo jaamu yàlla nangoo liggéey di muñ di wattandiku tooñ di ko jéggale ak a jëllale te jëm yàlla rek a tax yàlla na yàlla defal muñ ko rafet yàlla na yàlla defal muñ ko rafet yàlla na yàlla defal muñ ko rafet